Boy Diop trompeur arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ arbitre baa ngi laaj ay jugeam laaj na trompeur laaj na Boy Diop trompeur dagg na àñc ba lewaatoo bi soriyaatoo na ay trompeur trompeur Boy Diop trompeur am na lu tari trompeur Boy Diop ñoo ngi xoolante Boy Diop Boy Diop trompeur ñoo ngay lewaato lewaato bi bar na Boy Diop trompeur Boy Diop cokaas na léegi trompeur xool trompeur mbokk yi moo ngemboo ngembul vax bi féete à gauche Boy Diop ngemboo ngembul bu xonk bi féete à droite Boy Diop trompeur dañu liwaatoo ba mu neex la bi Boy mel ni ku bëgg dem waaye bu demee la fay fekk trompé Boy Diop. trompé est ce que daa bëgg a waaye Boy Diop est ce que dina nangu trompé trompé ko. Boy Diop a nga dox ci kawam. trompé tax door na ko. Boy Diop trompé. xool Boy Diop mag la. laay lay la laa. borom mag lay bëre. day bàyyeeg Boy Diop. na léegi jël na ko Boy Diop jël na trompeur Trompo da koo seen. Boy Diop jàpp na. Trompo raaj ci ay tànkam. Boy lu mu nar. lu mu ko nar a def. Trompo ngay dóor. na ma bëgg a xeex xeex. bañ xeex xeex. Boy Diop trompeur. trompeur Boy Diop. Boy Diop trompeur. Eh, lu mu ko bëgg a def da koy daan waaw waaw Boy Diop daan na ko. Boy Diop daan na trompeur. Oh, xale la. vite fait bien fait doole yamul daan na ko. Boy Diop daan na ko.